ndaje bi tey euh, jeunesse Xayra Laaw euh, ñoo taxaw fii di wanewu seen naqar naqar bi boo ko gisee nag ci début euh, présidentiel dañuy taxaw ak Macky Sall ñu yëkkati ko ba ci kaw jàppale ko Xayra ak département Podor bi ak sénégalais yi yëpp jox ko nguur gi bu ko defee nguur récompense la mu jàppale ñu ñu jàppale ko léegi nag yàlla def na. jàppale nañ Macky Sall bañ toll fu mu tuuli on appelle monsieur le président nga écouter message bi bu baax na nga déglu lu ñu la war a wax. kii di wax ak yow du Sakho moo nekk fii ak waa jeunesse Hayra Law euh, acteur développement nag ñoo fi nekk. ñoom ñoo doon taxaw démb ci kanamu tous les meetings di jaay seen bakkan. di def lu ne dugg ci àll bi dugg ci jéeri bi dugg ci waalo bi lekkuñu naanuñu lu mu ñu naqari dañ ko liggéeyal ba pare liggéeyal Macky Sall mu tourné mu waññu ginnaaw nii loolu moo warul am depuis jour élection ba léegi dara amul ayra laaw am na lu am lu mu commencé ñëw tuuti exemple ma wax la lenn fekkee soxla nga fukki affaire fukki téeméeri soxla genn wàll bi lañ commencé am projet yi xaari laaw exemple centre santé mi ngi foofu noonu amuñu ko diaspora yi ñoo nekkoon ñi nekk ci dëkk bi ak ginnaaw dëkk bi ñoo cotiser xaalis bi pour ñu defal leen centre santé moderne pendant cinq ans wala sept ans ñu ngi jàpp santre santé bi de léegi nag loolu dafa ñu naxari dañ ko bloqué amuñu lycée ñu ngi soxla lycée gendarmerie amul sapeur pompier amul foofu te population Xaarelaw département Podor ak agriculture bi doxul lim la wax dëgg la mbay mi xam nga junni ne waa développement waaw ah, ah, xam nga jeunesse baa ngi souffrir loolu lépp ñu ngi ci suñu biir dañ ko nax lu ñu gën a métti nag mooy lan eh, lu ñu lu gën a métti nag mooy mooy lan lu lu ñu gën a métti lu luñu lu ñu gën a xara lu ñu gën métti lu ñu gën a métti mooy lan dañuy taxaw tey def mun eh, sargal sargal eh, Macky Sall xam nga kan lañu war a sargal koo xam ne nii ko def ku ñu kontaan bisu tay bi nii am na xayra laaw ñu ngi foofu noon di sargal Macky Sall ñun ko ànduñ ak loolu ndax lan su fekkoon de sate fii ne waa xayra laaw dinañu war a ànd ak moom waaye dafa dem di sargal nit ñi ndax lan di leen jaay euh, ñëw naa soxla naa leen rek tey suba soxla wu leen mu ñëw di leen ramasser di leen yóbbu ay faalewul ay relaaw faalewul ay relaaw boppam rek c'est le directeur de eh, ah, eh, eh, ñu ngi leen di ñu ngi leen di euh, euh, ñu ngi leen di ñun ñëpp euh, dañu dégg suñu rakk yi li ñu taxawal nii dañ ñëw di leen jàppale si loolu dañu bëgg vraiment ku ñëw di jàppale dëkk bi mais lu ñu gën a si ci euh, Mountaga Sy mooy day jënd nit ñi les bon nit ñi kenn war soo ko joxee soo ko jëndee raay nga ngoram bon dafa bugg dañu bëgg mu jàppale mu jàppale dëkk bi euh, mu liggéey dëkk bi mu liggéey dëkk bi maa pa bu jox ñenn baay ñenn di joxe ay xarit tabaski yóbbu ay nit ñi mag ñu ay ralaaw weesu na loolu dañu bëgg mu taxawal dëkk bi liggéey dëkk bi vraiment di indi Macky Sall day sargal Macky Sall ñun gisuñ lan la liggéey air la ba waral sargal bi loolu moo nakar suñu xol moo tax ñu ñëw fii mhm. di ànd suñu rakk yi pour leen di leen jàppale mhm. waaw loolu moo tax ñu ñëw fii loolu moo tax ñu baay suñu liggéey ñëw fii mhm. ñun nag bañ ñu ko en tant que Mountaga Sy bon dafa war dafa war lu mu war dafa dafa dafa bëri centre santé bi depuis deux euh, mille quatorze ba léegi euh, démarré wul donc suñu dangay gis léegi ku jógee air laaw dem ba mbu boode di faju wala dem ba njum di faju dañu bëgg njum lu mu am Aïda Ndao am ko parce que Aïda Ndao mérite na ko defal na ko Macky Sall élection 2012 ba léegi élection euh, bu ñëw Aïda Ndao Macky Sall day gagné 98 pour cent wala 99 pour cent mais moom ñun amuñu mën bi delloowuñu lu ñu war a delloo ñu ngi koy jox mais moom joxuñu dara ñun na dañu ànd moom pour mu jàppale ñu ñu jàppale ko pas moom ñu koy jàppale mooy di ñu jaay mm-hmm. ñu nangu kenn jaay ñu nee na ñun dañ kon kontaanuñu ak nguur gi mm-hmm. taxu lu mu war a taxawee mm-hmm. dafa war a jàppalee dëkk bi loolu moo tax ñu ñëw waaw jërëjëf sëriñ bi salaamaaleykum euh, mbokk yi je sais que euh, am na ñi may xool te damaa bëgg video bi sori. Mhm. parce que lu ma ci gën a métti mooy ñi nekk fi ñëpp damaa bëgg vidéo élection présidentielle ñu ñu génne ko. Mhm. ñi nekkoon fii di rey seen bopp pour Macky Sall ñoo fi nekk mm-hmm. donc du question contre Macky Sall non non non c'est dañoo soo xamul fi nga jëm nga dellu fi nga dëggee woon mm-hmm. parce que amuñu leader te xam oui amul amul li ma ci en li ma ci gën a li ma ci gën a métti sama benn xarit mm-hmm. bi mu déggee euh, directeur de APIX la ñu la ñu nommé maire de Aéré qu'est-ce qu'elle qu'elle m'a dit elle m'a dit non non non mais yéen am ngeen sens. Mhm. yéen kay tekki ngeen. Mhm. seen tekk bi macha dina kii ma ne ko déedéet. pourtant pourtant ñëpp la ñuy yaakaar. Mhm. directeur de l'APIX. on t'adresse la parole. on en a marre. on en a marre. d'abord ouais euh, tu sais euh, nit lan la la mun a surtout teranga te mu considéré la maintenant il a commencé à renvoyer des jeunes de Aïda Lawa au niveau de l'APIX. oui. on, on, on les on, parce que lan da ngaa ñëw maire. Mhm. da ngaa gis da ngaa ñëw pour waxtaan ak sa maire. Mhm. maire dafa war a déglu population am. mais soo demee ba élection pare. soo ñëwee bureau APIX ñu dàkk la. loolu na fa dàkk. on veut maire qui est notre ami. on veut un maire qui nous écoute. donc na fi fini. c' fini doy na. doy na merci. dafa trahir Aéré Lao. Mhm. Aïda Ndao dañ kaa trahir ñun ak Macky Sall depuis démb la 2012 la ñu fal Macky Sall boobu Mountaga mu ngi France kon ñun ak ñun ak Macky Sall depuis démb la lépp lu mu waxoon jeunesse bi defu ko ñun sonn nañu tànn dañuy jaaxle dañuy lancer appel à président Macky Sall moo xam ne ñun ak moom démb la sonn nañ si moom liggéey nañ liggéey bu baax 2012 98 pour cent lañ ko jox instant boobu Mountaga mu ngi France di tëdd dañoo sonn dañoo xiif amuñu dara amuñu dara xoolal jéeri bi jéeri bi amul forage jéeri bi dafa sono ah hôpital ba léegi amuñu ko amuñu amuñu dara ah amuñu lycée amuñu gendarmerie aére dafa lëndëm kunus amul panneau amul panneau de euh, panneau de solaire amuñu dara ñu ngi si danger suñu mag yi sonn nañu taay nañu jaaxle nañu dañoo jaaxle waaw nañu lancé président Macky Sall moo xam ne ñii ay doomu aére lañu mm. on est des aére laaw la ñu jógee ñoo fi def def point de presse nga xam ne dañoo sonn dañoo taay Mountagas yi sonnal nañu taayal nañu ñu mm. bugguñu mun Mountagas yi na dem yoonam mm. dañoo sonn si ñoom